mbégte ak kontante leen amati delloosiwaat fii si Star TV indi leen xibaar yi lu gënoon fees week bi lu gënoon fees si week bi nag mbokk yi benn la mooy génn àdduna ki nga xam ne moo fi njëkk a nekk njiitu réew di Sir Dawda Kairaba Jawara moom nag mu ngi génn àddina si talaata bi mu amoon ñeenti fukk at ak juróom dinañ si delluwaat lu yàgg ci loole kan mooy woon président Jawara la la bàyyee si boppu nguuru Gambia. lan la itam doomi Gambia jàpp ci moom tey jii nii ak lan ak yeneen fànn yoo xam ne tey jii xëy na xaw nañ ko fàtte dinañ ko delluwaat lu yàgg fii nii ci programme bi tey ak suma guest nga xam ne mooy Sheriff Kijera Sheriff Kijera nag xam nga ne moo jiite Gambia Victim Center moom nag xam na kii nga xam ne mooy président Jawara kon nag mbokk yi programme bangook euh, ñu gërëm leen bu baax baax di leen sant ñu gërëm itam ñu nekkee ci machine bi di Mohamed Ba ak tiimam mbokk yi comme niñ ko waxee rekk ci ponk yi rekk Gambia nekk ci dëj loole nag ginnaaw ki nga xam ne mooy woon njiitu réew mi fi yoon di Sir Dawda Kairaba Jawara bu mu génnee àddina si talaata bi mu amoon 95 years mu daal di nelaw rekk ci talaata bi mbokk yi doomi Gambia ji di ko jooy njiitu réew mi déclare réew mi mu ngi si li nga xam ne si déj si seven days fu ne nii nag ñu ngi wàccee raaya réew mi de xam nga ni nag moom moo fi xeexal réew mi ba mu jot boppam si 1965 mu njëkk nekk prime minister laata muy nekk président mu nekk si bopp nguur gi boo xaymaa yépp si fanweer at ak ñaar te ji nii doomi réew mi di ko jooy ñu dem rek si xool ci élément bi ñu wax kan mooy woon président Jawara lan la bàyyee si bopp nguur gi ñu seetaan nataalam bi laata ñu dellu siwaat fii si plateforme bi génnam ci mbooloo bu mujj bi nga xam ne tey ñu ngi ko gis comme tàggatoo mi ngi am keroog si 18 février 2018 bis bi nga xam ne Gambia mi ngi doon màggale bis bu moomee boppam si bis boobee mu daal di feeñ askan wi tàccu ko bu yàgg ndax ba tey jii danga ko gis comme kilifa bi nga xam ne ñëpp ko jox cër mu fekk baax si ab gox bu nekk si CAR ci atum 1924 Kairaba comme ni ko doomi réewam di ko woowee am jaar jaar bu am solo mu jàngee si University Glasgow. ci réew Scotland fa nga xam ne fa la amee certificat am ci 1953 mu daal di ñibbisi ngir sos parti boppam ci atum 1962 Jawara daal di falu prime ministre ginnaaw ay négociation yu yàgg réewam moom boppam ci 1965 waaye mu wëy nekk prime ministre ba 1970 nga xam ne ci leen defaraat constitution réew mi at moomee mu falu njiitu réew jamono yooyee nag Gambia amagul woon ami ci atum ñu daal ko fool yi Sénégal jaarale ko si njiitu réewam boobee jamono Abdou Diouf am si taxawaay bu rafet fexe ba Jawara dellusi ci nguur at bu ci topp sax ñu daal di amal confédération diggante ñaari réew yi waaye mujjul yàgg moom Jawara nag ñoo ngi xamle ne njiit bu bëggoon réewam la bëgg jàmm itam turam sax Kayra Ba nga xam ne ci kàllaama soose mooy jàmm firndeel na ko waaye nag si nguuram amoon na itam ay rëx-rëx moo waraloon sax ñu fii ci atum 1994 buñ ko baalee nag juróom-ñetti at si ginnaaw mu daldi delloo ci réewam président Adama Barrow daldi ko delloo njukkal si Facebook mu wax ne njiit bu bëggoon réewam moo fi bàyyeekoo Amadou Bari Star TV News. ok mbokk yi ba affaire yaa ngoog ñoo ko seetaandoo kii nga xam ne mooy woon fii njiitu réew mi mu xeexal réewi Gambia be mu jot boppam mu njëkk nekk prime ministre ata muy nekk président si 29 years bu loolu weesoo itam mbokk yi ñu fas leen indi li nga xam ne itam lan la tey jii nii lan la président Jawara bàyyee si bopp nguur gi lan la Gambian si gën a jàpp si lool moom nag ñu fàttali ne dafa génn àddina si talaata gi mu amoon 95 years te jii nii nag Gambian si mbooloo daa nekk ñëpp di ko delloo njukkal ñu wax ne rek moom njiitu réew bu sedd la woon amaloon ñëpp ak jàmm kon nag mbokk yi ñu fas leen indil ki nga xam ne itam mooy xaw su Cissé moom nag mu nekk ku xam ne xelam dafa màcc ci wàllum taarixa ñu koy woowee ci English historian ñu déglu rek moom te ji ni lan la Gambien si lan la askan wi mun a jàpp ci ki nga xam ne mooy président Jawara lan la bàyyee ci boppu nguur gi laata ñu dellu ci waat fii ci plateforme bi ci fanweer at ak ñaar bu mu nekkee ci boppu nguuru Gambia mu njëkk nekk prime minister laata muy nekk njiitu réew historien bi di fàttaliku ci président Jawara nit koo xam ne réewam amal na ko njukkal. am nit jamono dafa fonkoon. Gambien bi buut lu ko sonal. dafa fonkoon démocratie. tànn si bu la neex bokk fu bu la neex. bu Gambie di commencé. yéen réew mi amul dara amul touriste amul industrie amul dara. asumay gerte. ñi naw ñu. di ñëw di ñu indil bagage. dañu indi ndimbal. mu xam xamle ne président a dafa yàgg doxu tànku jàmm diggante réewam ak Sénégal. dafa fonkoon suñ diggante ak Sénégal. suñ dëkkandoore pour jàmm nekk si te suñ jugganteeg Sénégal boobu daf si gën a dox waaw acétaane dafay am soo gisee nu mu commencé nga xam ne amoon na intérêt ah, pour liggéey historien bi di fàtte fàttali xaatim déggoo bu Sénégal ak Gambia amaloon ci atum 1967 bi nga xam ne mi ngi wëy ba léegi Gambie mënuñu ubbi ambassade fii fii fii mu signé ak Sénégal ne mboolem fu Sénégal am ambassade su fa Gambien demee rek mu ngi mel ni mu ngi biir Gambie ah waaw kay ku Xadi weddi ba mu seet wi ci luñ yàgg tuumal président Jawara ne si nguuram bari woon naay gàllankoor ñu ko folli woon sax ci atum 1994 woon ko Amadou Bari Star TV News. mbokk yi ñoo ko seetaanoo tey jii lal si tënk daal dafa wax ne rek. président Diawara nekkoon na ko xam ne ko bëggoon réewam la bàyyi na fi loo xam ne kenn du ko fàtte réew mi yëpp dal di ko delloo njukkal maa te lool dalal fii ki nga xam ne mooy Chérif Kijira Chérif Kijira nekk njiit tey ji mbootaay bi Victim Center mu nga am si beneen melokaan nga nekk ku jege woon président Diawara man lay nuyu di la dalal fii si plateforme bi. jërëjëf Amadou. Mm-hmm. Euh, bi. Mm-hmm. di ngërëm waa réew mi yëpp si mm. teraanga buñ defal Sir Jawara mm. euh, pour mu tàggatoo waa réew mi mm. um, Sir moom ku baax la woon um, ñun suñ kilifa bu baax la um, yor nañu yor bu rafet. Mhm. famille bi yëpp a yor yor bu rafet. ñu fàttali ne yow mbokkam nga. waaw man suma suma maam la. macha allah waaw su um, nekkoon nañu Angleterre together. ok amiin uh, bu mu wàccee nguur bi. bu mu teete nañu. ok uh, guide nañu foofu. Mhm. support nañu support bu ñu mën a comme kilifa nu mu mën a defal uh, njabootam. macha allah fii tamit bu ñëwee bu ñu ñëwee ñun ñëpp bu ñëwee tamit. Mhm. ñu ngi together oh. mm-hmm. uh, yor nañu yor bu rafet daal ah, na waa réew bu rafet moo tax tey mu am lu mu am tey ok waaye kon dégg nga ko xëy na seraan nga tuuti élément bi ki nga xam ne mooy Hawsoon Ceesay xelam màcc si wàllum eh, taarixa historien mu wax ne président Jawara tey jii nii réew mi amal na ko njukkal ndaxte euh, bu mu jël euh, réew mi euh, maanaam Gambia si si jamono yu metti lañ nekkoon mu xeex ba ñu jot indépendance waaye tamit wàllum koom-koom gi économie bi maanaam Gambia dafa nekkoon réew moo xam ne xam amul woon dara ba pare kenn gëmu woon ne dina mun a yor boppam maanaam dañ doon wax ne improbable sovereign country la waaw foog naa historien si mm-hmm. amin foog naa woon nañu ñu leerala loolu bu baax mm-hmm. pour am ndaw yu nekk si jamono ji because ñu bëri amuñ fekkewuñ jamono Sir Dawda Jawara suñ génération waaw seen génération bi fekkewuñ ko so am duñ mun a gis am tolof tolof yuñ yuñ jànkontol bay jël réew mi am time ñoo jël independent Gambia mm-hmm. dañ doon wane sa it was an improbable nation mm-hmm. so nangu wuñ woon sax am ñu bàyyi ñu ñu yor suñ boppa ñu doon suggesté ne pour ñu euh, boole ñu ak Sénégal so um, Sir Dawda ak di um, founding fathers ñoom Gaba Jahumpa ñoom Kalilu si ñoom MC Cham waaw ñoom ñoom ñoo xeex amin da suñ independent bi ideals la gars yi doon fight not actually waaw seen ideals la gars yi doon fight mm-hmm. ne bañ bañ tollu tey ñu am suñ boppa mm-hmm. ñu am mu indi a very good governance I mean mechanism yu nga xam ne yore nañ réew mi si démocratie human right ak rule of law ba tax na tamit jamono boobu noonu mm-hmm. Gambia amuñ woon central bank GPM bi nekku fi woon Gamtel nekku fi woon social security bi nekku fi woon time boobu noonu primary school forty eight rek la woon waaye bu Saaraw la ñëwee ba jamono bu moo bàyyi nguur gi it was over two hundred and fifty primary schools so high schools yi tamit ñu fi woon mm-hmm. mm-hmm. you know waaw Gambia College MDI you know GTTI Gambia tamit dinañ proud na ñu ñoo amoon nañ di best civil service a well disciplined and a well groomed civil service mm-hmm. discipline mu ngi fa woon mm-hmm. you know so res ñëpp a ngi woon am am responsibility mm-hmm. si wàllum doxali mi réew mi so Sarawara Jawara am legacy suñ ko buggee wax fii am du fi jeex am waaye comme ni nga ko waxee rek ñun dañ koy delloo njukkal ndaxte eh, comme ni nga ko waxee yelloo na ko deserve na ko te jii nii luñ mënta def rek mooy delloo ko njukkal fàttaliku la ay principal ay dox joxe leen ay gëm lan la fi bàyyee comme ni ñu ko waxee tey jii nii weekly programme boo xam ne week bu nekk dañ koy indi pour wax ne rek lu gën a bi waaye week bi dañ ko jégleel moom euh, président Jawara ñu waxtaane rek ay fànn yoo xam ne xëy na tey jii ñun suñ génération xaw nañ koo xaw a fàtte ndaxte xëy na ñun jamono jun fekkee dañ doon wax ne ci réew mi boobu jamono xawoon na nelaw tuuti euh, courant amu woon noonu TV amul woon university amul woon ñun xëy na suñ maas yi suñ génération bu ñu fekkee loolu lañ doon dugal nit ñi si si si nguuram loolu lañ si mën a jàpp maanaam bu bu ku ku ku woon nguur yi gi 1994 Yaya Jammeh bu mu ñëwee ak loolu lañ doon lay waaye yi liggéeyuñ dara réew mi dafa nelaw loolu loolu ak ay ay wax yooyu lañ doon dugal si bopp nit ñi xëy na tey jii nii jar na ñuy ñuy ñuy waxaat si loolu. waaw loolu waxi kaw la mhm. ku wax ne Saadaawda defu fi dara am loolu lu la neex rek nga wax mhm. am na suñ paay war nañu mun a toog fii ñu won time colonial days lan la fi nekkoon lan la colonial powers yi bàyyi woon fi mhm. ak la fan la jëlee réew mi ba ko fu mu àgga ñoom Yahya Jammeh bu muy ñëw dafa fekk structures yi yëpp fa Gamtel mu fa central bank mu ngi fa you know commercial bank mm-hmm. Gambia Port Authority mm-hmm. you know GUC ñoom ñoo indi GUC mm-hmm. you know su ku wane courant amu fi ñoom ñoo indi GUC so nation building is a never ending process it goes on till the end of time you know benn government mënut a ñëw jeexal eh, development process nation ah, building yow foo em keneen ki foofu la koo jëlee mu yóbbu ko moom fu mu em mu keneen ñëw jëlati foofu so ah, mbir mi foofu la nekka so ah, structures yi foundation yi ñoom ñoo lee di foundations university amu fi waaye mm-hmm. ñu nekk university tey mm-hmm. fu ñu starté da ngaa start fu ñu commencé mooy primary school dem secondary high school GTCI mu ngi fa MDI university bi tey amuñ structures foundation ak structure yu fi start war a bàyyi mooy MDI Gambia College GTTI xale yi foofu la dem def seen université foofu la foofu lañ dem foofu la ñoo dem toog so waaw daanaka université bi programme bi la uh, Yaya Jammeh indi dugal ko si institution bi mm. mu continue continuité la am foundation bi sarara moo ko fi indi and uh, soo ñëwee gis civil service bi tamit mm. civil service bi dafa yaaxu léegi you know time boobu noonu dangaa starté from si suuf mm-hmm. ñu laa groom nga egg ba si kaw experience bi dafa mm-hmm. nekka mm-hmm. you know so waaye léegi loolu moo fa amatul nit dafa graduate rek am uh, uh, masters or bachelor's degree ñu def ko permanent secretary without um, experience gis nañ fi ay secretary général yu nga xam ne amuñ benn experience ci civil service ñu jël leen def leen waaye Sarara you start from different you start principal secretary nga ñëw permanent secretary permanent secretary mm. different department ba ñëw nekk secretary general so am nga professionalism bi mu ngi fa ba pare experience ba fa mm. discipline bi tamit mu ngi fa so mm. um, government continuity la am solo jërëjëf Mr. Kijera kon ñu wëyal rek uh, tribute li nga xam ne mooy delloo njukkal président Diawara euh, bu loolu weesoo si alxamis gi ñu fàttali ni président Adama Barrow daal di jël dogal wax ne si seven days réew mi mu ngi si li nga xam ne mooy day dañuy wàccee lëng yi di flag bi euh, bu loo si alxamis gi nag ñu daal di ko delloo njukkal ñu amal waxtaan ak doomi réew Gambia yi tey jii nii lan lañ gën a jàpp si nguuru ku njiitu réew mi fi woon si fanweer at ak ñaar bu mu fi nekkee ñu sekk waxtaan ak ñoom ok ñu déglu ko ñu seetaan ko laataa ñu dellu si waat fii si plateforme bi. Kéréba Jawara nekkul nag nit ku baax réew mi yëpp a ko ñàkk daal. am na lu ma ci fekke waa nguuram gi moom tam amul benn problème. mu nekkoon lan nga ci gën a jamono <laughs> laa ci gën a fàttaliku. ah xanaa nit ñi am jàmm rek ci moom. mu am jàmm am ñëpp jàmm. loolu laa ci ko parce que daal ku baaxoon la. amul benn problème. ñu ngi koy ñaanal daal fa jëm. yàlla na ko gënal fi mu ko. am nañ tamit ñu wax ne am na luñ ko war a delloo njukkal ci réew mi maanaam xëy nañu tuddee ko ay bërëb. kontaan ci loolu rek parce que war nañ ko ko tuddee ndax yelloo na ko. man mii de lu mën a seede laa ci moom lu bëri. ndax ba maa seede ci moom. boobu mu ngi da xaleel waaye maa ngi doon moom moomu mag nag. waaye booba xale bu ndaw la mu nekk vétérinaire da péngu nay mu ñëw ca dëkk bu ñoo wax ndungu caareen mu péngu fa nag jawara ay mbiram yëpp duñ ko taxaw di ko wax ci mbedd ndax wax lu bon mosuñoo dégg mu def lu bon xol bu set bu sedd la am nguuram dafa lewet dafa sedd dafa neex jabaram ku oyof la moom jawara tam ku oyof la dem naa fa ma nuyu wanteeg moom mu ñaanal ma ma ñaanal ko lépp ak oyof jawara buy romba benn moto du taxaw dafay daw moto di daw ngook mbokk yi ñoo seetaanandoo CD yooyu si kii fi nekkoon njiitu réew mu xeexal réew mi ba mu moom boppam mu jiite ko fanweeri at ak ñaar euh, Mr Kijera ñoo seetaanoo ñoo déggandoo seede yi bii eh, ñu ko taataan si mbedd Banjul yi dégg nga seede yi ñoom ñëpp wax ne nguuram eh, macha allah tey jii nii lu rafet rek lañ ci xalaat loo ci loo ci wax waaw ah foog naa gam ne nii ñooy seedal seen boppam mm. because ñëpp gisoon nañ jamono Saadawra nu meloon dunda gi mu nga yomboon bag of mm. moom ba balaa mu bàyyi bag of rice was um, $150. Yes, sir. A bag of rice is $1,500. 1006 You know, 1006 yeah. So um, saku cement was um, $50, 50 $58. Yeah. Waitei saku cement yang ko jina $330. Yeah. So, um, ak yena la yenen. Halis you know dollar bi was um, nine dalasi to the to the to the dalasi pound sterling was fourteen dalasi to to to the dalasi that time in 1994 si am am different deal yu gàtta I guess am um, inflation bi ñu yaaxa réew mi you um, bi salari bi tamit doyatut nit yi mm. bu ndaw barke barke dafa nekkoon si nguuri ja saada barke moo fa nekkoon dañ doon nettali ne eh, ku doon dem school ay ay taransu taransu taransu ten butu nga yóbbu mm. you know soo demee school feeding programmes yaa ngi fa mm. you so foo dem di nga lekka xale xiif xiifuñ you so um, dafa amoon système bu hmm. nekkoon in place soo yërmande bi tamit mu ngi fa hmm. Gambien ni tamit yar ak teggin mu ngi woon si ñun hmm. you know nit yi orma wante nañ you know um, mbooka yi ñuy jëflante si orma ak teranga so loolu yëpp si jamono Sir Dawda la amoon waaye fu mu ne nii jamono gi dafa xaw a doy doy waar torop fekk na xam ngaa dunda gi tamit su naxaree so danga groom am in a very wild society so yar waaw njublan ak yar ak tegin amatut mhm. so jamono Saadawda am dunda gi was very cheap you know nit yi the feel good factor was very high so um, alhamdulillah mhm. ba tey am ngi toog fii tey di ko so I think war nañ see jàng lu bare bare bare bare la ci loolu sax dëgguma la am tamit xibaar bu bu bu daanu bu yàggul wax ne euh, ku ku fokkati woon nguur si 1994 di Yaya Jammeh démb ebal na njaale ci famille Diawara euh, tey jii lañ ko yëg ñun euh, mu nekk itam xibaar boo xam ne tey jii nii Azure Nation war nañ ko rafetlu waaw loolu lu rafet la mhm. because Sardaawda bett na ñu bëri daal Sardaawda la gëm te loolu war a mhm. am si jamono buñ toll ni tey si mhm. jamono tiis la pour Gambia yëpp including Yaya Jammeh mhm. ak ñun yëpp délégation waa APRC dem ba mu woote mu jàll waaw Yaya Jammeh tamit amoon na jamono si njobooti Sardaawda la nekkoon ko Sardaawda moo nekkoon président mu <laughs> Yaya Jammeh nekkoon balaa moo nekk président soo ba pare ñun yëpp Gambien lañ xëj na tey moom dinañ faate yeneen yi di ko si si si jamono tiis lañ nekka mm-hmm. soo su defee loolu lu rafet la def mm-hmm. loolu la war a def soo mm-hmm. ñu ko rafetlu bu baax soo loolu foog naa démocratie moo ko oote ak tolérance foog ñu tolérate wante so su defee loolu waaw ak bugg réew mi rafetlu nañ ko lool so si am na ñoo wax ne tamit moom bu mu jëlee nguur gi after defal na teranga Jawara xëy na tey jii nii lu bari lañ ko yëgal moom Yaya Jammeh way am na lu baax tamit xëy na lu lu mu jëgleloon Jawara comme wax ne euh, pension bi yokkoon na ko defaral na ko jox na ko ay yenn xeetu terang xëy na yëpp dañ ko mën a wax bu bu mu bindee bukkam bi demoon na mu fawoon ko kay mu xaalis bi xëy na tamit xëy na tey jii nii xëy tamit jar naa wax waaw ah nit ki doo mën a nekk si lu bon rek ku nekk am nga sa lu rafet ak ak lu ñaaw mm-hmm. so yu rafet yu mu def koo rafetlu rek waaw loolu taxul tamit mm-hmm. dinañ gestu si toroxaande yu mu teg majority of Gambians so bii saarara individual la ko def waaye soo seetee di majority of Gambians mm-hmm. te coono bu nekk te Yaya Jammeh moo ko teg Gambia yëpp te am lu mu xëy naa duñ ko fi mun a wax waaye because of ñëw uh, na overthrow a democratically elected government um, Saa Dawda mu ngi exile um, um, mu nekk fa eight mu nekk fa eight years mm -hmm. Um, am tolof tolof ak difficulty challenges yu am outside am nga moom moom mm. moom ak famille am rek a ko xam so Yaya Jammeh su ooyee Saa Dawda mu dellu si mm. loolu Saa you know right am la pour mu ñëwaati te teraanga yu mu ko defal right am la tamit as a head of state mhm. pour mu am allowance am mhm. you know mu am sécurité am you know loolu la yaayam tamit expect su fi génnee by right mhm. constitution bi loolu lañ ko war a defal because loolu moo nekk foofu noonu lu mu war a def loolu la def as a head of state waaw di ko gërëm tamit comme am nit ki su defee su la su la wonee orma ak teraanga si certain aspect mhm. war nga ko see mun a gërëm rafetlu si tamit loolu moom loolu is a human mhm. human human human nature mhm. am loolu ñu war a see comme sarara nu mu ko daan def ko tolérance ñu am tolérance am waaw muñalante adalante waaw dëgg la am na solo jërëjëf Mr Kijera ñuy wéy rek si li nga xam ne tribute dellu njukkal président Jawara si alxamis gi nag mbokk yi nation bi yëpp réew mi yëpp mbooloo daal di ko delloondoo njukkal laataa ñu koy suul mu amoon ci alxamis yi ci national ci eh, national assembly bi doomi réew ñu bëri ñu matoon ay thousand ay junni junni nit ñëwoon foofu ñu nguur gi ci boppam ñu daal di indi screen ci biti eh, ñu may nit ñi ñu mën a seetaan Euh, askan wi nag ak waa réew mi ci biir euh, assemblée bi leen dajale woon ku nekk indi sa seede rek réew mi njiitu réew mi ak euh, mbokki kàngam yu bari ci réew mi daal di ko delloo njukkal sénégalais wàllum Sénégal suñ dëkkandoo yi ñoom it ñu yebaloon délégation bu am solo bu takku ñu ku ko jiite woon nag mooy Ministry of Defence bu Sénégal di Sidiki Kaba mu indi lu mat fukki million CFA e, jégleel ko famille Jawara loolu nag buñ ko xaymaa ci dalasi mu eight hundred thousand euh, dalasi ak xëy na lu toftal ñu de ñu dem seetaan élément bi li nga xam ne lan lañ mën a jàppandi si bés boobu laataa ñuy dellu si waat donte asamaan bu xeen ba ñuul kooku bari woon na ci doomi réew Gambie ñu ñëwoon fekkee ci delloo njukkal bu mujj buñ doon amal jégleel ko président Jawara buñ àndee néew bi nag ñu bari daal di jooy Pa Modou Dramé di waaja signé ci livre jàlle bi di fàttaliku ci président Jawara njiitu réew boo xam ne moo waral te ji siège commission africaine des de l'homme nekk fii ci Banjul Jawara mooy jàmmaari axi doomu adama yi ci Afrique moo njëkk a xeex pour doomu adama yelloo seen ax ci Afrique bañ ko mujjee jox bureau boo xam ne nii képp kuy doomu adama ci Afrique axaam ak yelloom Gambie lañ ko establish Tami Jawara ci biir assemblée nationale bi nag ñu bari indi CCD ñoom ñëpp daal di delloo njukkal ku fi bàyyeekoo Omar Diallo nekkoon jege ñaale ak ministre président Jawara wax ne moom njiitu réew mi fi woon yàgg na gom ne Gambie mun na moom boppam ma Jawara Gambie mën na yor boppam ci jamono joo xam ne dañ doon wax ne loolu mënul nekk dafa tabax am réew moo xam ne doo ci ràññee xeet diine wala région loolee la ñu bàyyee. One United Family. ku fi nekkoon jëwriñ bu yor wàllum mbay mi di fàttali njiitu réew mi fi woon ku doon dox tànku jàmm la ci Afrique soo jant. Jawara nekkoon na doxkatu jàmm diggante réew yu Afrique soo jant yu bari boo xoolee sax diggante Sékou Touré ak Léopold Sédar Senghor bu yëf yi tàngee dafa dox tànku jàmm ba mu sotti noonu la def itam diggante Houphouët-Boigny ak président Togo di Eyadema docteur Ismaïla Cissé di politologue wax ne funérailles nationales yi lu baax la waaye réew mi amal na ko njukkal li ko raw. mën nañ bi mën nañ ko tuddee université bi. laata loolee nag président Diawara léegi mu ngi tëdd ci biir assemblée nationale. Ah, mbokk yi ak mbokk yi fii la jeexee nag euh, li nga xam ne mooy delloo njukkal bu mujj rek si président euh, Jawara euh, Mr Kijera ñoo ko seetaanandoo delloo njukkal bu mujj bi si National Assembly mu nekk lu symbole la ndaxte moo foofu mooy représentation réew mi si National Assembly bi ñu indi ko fa réew mi yëpp delloo ko njukkal balaa ñu koy suul si biir bërëb boobee dégg nga yi comme ku ci mel ni Oje Omar Diallo nekkoon ku ko jege lool dégg nga lum ci wax si si si lum ak keneen ku doon wax ne président Jawara moo xeexal Gambia ba tey jii nii headquarter euh, Human Rights Commission bu AU fii la nekk. Mhm. waaw loolu lu rafet mu see rafetlu lool. Mhm. Um, because first of all di wone su ngir maa ne président Adama Barrow. Mhm. ak njobootam ak um, ak gouvernement bi leen gërëm si turi um, famille Sir Dawda ak suñ kilifa Jawarakunda yëpp mhm. si seen tur mhm. ak turi Gambien yëpp di leen gërëm mhm. di gërëm waa Gambia amin uh, si teranga buñ defal Sir Dawda Jawara um, pour tàggatoo ak moom foog na lii Gambian lii mooy uh, Gambian Gambian lii lañ xam am Gambien mun naa coow waaye su ñëwee ñu ne neen suñ toogee dañ gaaw a am yërmande dañ dee fàtte yu bari yu passé pour ñëw nekkaat benn so lii is very symbolic soo demee si National Assembly different political parties ñoo fa nekk UDP mu ngi fa NRP mu fa APRC mu fa GDC yëpp a fa nekk political parties yi ñëpp a fa nekk dañ tegee suñ différences yi yëpp fële you know ñu ñëw come together ah, demin saa loolu dafa unite dëkk bi dafa unite dëkk bi yëpp mhm. so moo taxit nag lu ma dénk waa Gambia bi mooy ñu use this opportunity use this very moment ñu profitoo si ñu profitoo si mhm. pour promote reconciliation mhm. promote peace ak stability suñ dëkk bi ko Sarara loolu la xam loolu rek la doon liggéey si life am daf doon mediate peace si diggante réew yi nga xam ne ñu ngi woon ay conflict dégg nga ko dégg diggante Sékou ak Léopold Sédar mm. ak EADMA ak mm. houphouët mm. so daf doon yooyu la doon médiate peace pour ñëpp nekk si jàmm woon si réew mi waaw so ba pare ak uh, the culture of tolerance you know ñuy tolerate wante ñu xam nga ñu accommodate wante mm. dëgg la ñëpp duñ mën a agree nekk the same opinion mm. so we have divergence of view so ñu mm. war a respectante nag dégg nga CD CD dégguma la Sidia mu ne moom si opposition bi la bokkoon boobu lu mu ci CD waaw waaw CD yu rafet xam nga lii la ay mature politicien war a mel comme maa si Sidia Jatta ay OJ ñoom Ousseynou Dabo you know Halifa Sallah fale gis nañ Tom Monjatta tamit ñëw na foofu you know ak ñeneen ak ñeneen mm-hmm. soo foog naa amin daa war nañu war nañ see jàngat lu bari so ba tax na mm-hmm. président Adama Barrow mm-hmm. man maa ngi koo encourage mu use this opportunity ah. pour amin call a national conference a national conference this is a message to him all political parties religious leaders both Christians and Muslims and community leaders you know ndaw yi xale yi jigéen ak góor ñu am a national conference pour unite the whole country you know because fitna yu ñoo nekk di mm. wax bari na de balaa dëj bi balaa dëj bi coow bi bari na wax bi mm. bari na soo demee social media yaa ngi wax three ya jot na ñaa ngi wax five ya jot na you know so commission TRRC bi fale li fi ni fale so I think this is an opportune moment mm. pour ah, hmm. tax na de dëj bi moom tax na wàcc waaw tension bi yëpp wàcc na hmm. so dafa mel ni Kairaba definitely war nañu mandargaam hmm. si si moment bii nii so so moo tax ñu war a consolidate I mean uh, suñ uh, jaamo jooju bu fi uh, dëj bi indi so ñu profite aussi ñu call a national conference ñu mun a waxtaan message to him message bi especially to Adama Barrow not just Adama Barrow waaye the entire political leadership muy di UDP muy di yeneen parti ku nekk war a dem si say si sa si sa militar si mm-hmm. ñu waxtaan ak ñoom fitna yi ñoo bugg a ekkati si réew mi amul njëriñ amul solo nañ waxtaan ak ndaw yi mm-hmm. ñu indiwaat suñ xel yi si si si si si table si interest réew mi mm-hmm. you know because national issue bi ak agenda bi moo war a nekk ñun yëpp suñ soxla ak suñ ité pour gis ne stabilité ak peace ñu maintain ko si réew mi dégg Ah, soo demee si campagne bi woon mhm. dama si bugg a profité rek wax si tuuti rek soo demee si campagne bi woon mhm. ah, coalition bi ñoo fi diggee ne mhm. ah, suñ toogee three years la ñu toog waaye ñëpp xam nañ ne loolu mënut a nekk bi ko nekkul si constitution bi ñun constitution bi lañ gëm man de waxuñ si on my behalf bu ma dem saani karta dama dem saani karta pour président bi ma elect ko for the mandate of five years ñoom ñoo ñëw nag promise loolu ñoom ñoo war a delluwaat rek ñu delluwaat waxtaan na askan bi ñu woo leen waa leeral leen ne mhm. ñun ñoo diggoon three years programme si transition bi mënuñ koo def si three years bi mhm. ko ñëpp xam nañ loolu si transitional ah, programme lañ nekka TRRC baa ngi ongoing mhm. constitutional review commission baa ngi ne de submit aguñ seen lifin bi you know nga am national human rights commission bi ñoom léegi lañ taxaw amaguñ office buñ taxaw sax you know ah, security sector reform bi tam mu ngi on so process yi foog ñu jox ko a chance ko defee ñu mun ñu si séntu ñu mun ko see am di mm-hmm. si commune government bi nag si jéeguwaay yu ñu def si yooyu noonu macha allah yow jéeguwaay yu rafet yi yu am solo la fa gaajal mm-hmm. ah, indi na TRRC bi ak yeneen yeneen mm-hmm. process yu nekk on soo Gambien ni nañ understand loolu waaye politiciens yi nañ waxtaan ak nit yi su ko defee ñu understand i ko ñoom ñoo ko diggi woon so ay dee su go back to the people ñu waxtaan ak ñoom Adama Barrow dafa war a ah, toppa tànki saadaaw rek pour di déglu tamit nit yi lu ñu la advice nga mun a jël yu baax yi mhm. su ko defee ñu mun a dox doxal réew mi si kaw yooyu noonu su ko defee jaama mun a am si réew mi waaw mm. wax nga lu am solo lii moom nekk na message bi nga xam ne pour sunu classe politique bi mm. mooy kuje bi mooy nguur gi ñoom ñëpp comme ni nga wax ñoom ñëpp ñu fa woon mm. kon nag war nañ jànge si tolérance bi diggante comme li nga wax diggante three years ak five years ak diggante UDP ak président Barrow mu mel ni diggante bi rataxawul comme ni nga ko waxee kon nag lu am solo la tey jii nii ñu wax ne war nañ si profité war nañ si jànge dëgg la ci réew mi ñëpp mënuñ ci ànd waaye mun nañ nekk si peaceful si jaamalante ak ku nekk nag am li nga gëm. Hmm. waaw am tamit ñu wax si seede yi dégg nga ko docteur si Cissé mu ne euh, président euh, Jawara delloo nañ ko njukkal fine rafet na waaye euh, pour ñu bañ koo fàtte te jii nii am nañ Kairaba Avenue am nañ Kairaba Beach waaye mën nañ ko tuddee xëy airport bi ba tey jii ni airport international Banjul lañ koy wooye ba tey jii ni University of the Gambia lañ koy wooye mën nañ ko tuddee bëri di institution yi. waaw ñu saaraaru rek sax. ñu xëy na ñu ngi ko na am na ñu doon wax ne. ñu ngi ko doon séntu. Mm-hmm. président Adama Barrow wax ko si speech bi bu mu jëlee kàddu. waaw Adama Barrow waroon naa profité si speech am. Mm. amiin uh, mun naa jël benn dogal boo xam ne bu am solo. bu maak nit ñi not just pour affaire yi saaga rek sax comme lu ma jot jot a wax ni rek pour unite the whole country mm-hmm. you know ak coow bi bari na trop soo mënoon la ñoo use occasion bi nii pour mm. fay lu bëri waaye xam nga xel matut tamit mm. soo waxtaan yëpp waxtaan a ko rek indi xëj mm. na si waxtaan yuñ nekka ni conversation yuñ nekka ni mu ngi koo déglu waaw soo foog ñu xelalante rek xel matut mm-hmm. soo foog ñu understand ku nekk weak point am man am naa suma weak point keneen am na weak point am waaye su façon conversation yi la ñoo mën a jàngate sant yàlla si jamono buñ nekka tey ku nekka is free mun ngaa wax lu la ne si mm-hmm. mm-hmm. social media print media whatever si télévision lu nekk amuloo benn problème doo gëstu gannaaw soo loolu ñu ngi see ñu ngi ko see rafetlu lool ñu pour travail pour ñu consolider those am si démocratie bi ak ñu Gambia so comme Ismaila Ceesay lu mu wax dëgg la mm-hmm. am mun nañ ko def eh, tuddee tuddee ko airport du saa daaw rek sax ak suñ kilifa yu fi ah, passé you know ñoom Fariman Singate you know um, ñoom Gaba Jawum ba fale you know Edward Small training ko hospital bi loolu moom rafet na trop mm. so xam naa Adama Barrow loolu dina nekk si xelam dina dina si gestu mm. am ñu ñu ko doon critiquer naan su jàmm bi dafa xaw a dese yooyu waroon na gën a waroon na gën a wax nit ñi daal am mu jëlee kàddu wax na waaye am nañu doon seentu lu raw loolu xëy na waa xëy na ku nekk ak nu ko xalaatee la <laughs> waaye ba tey foog naa Mhm. xëy na speech bi nit yi ni ñu ko expliqué na demeewul noonu waaye ba tey taxawaay bi rafet na lool mhm. ñu rafetlu si lool nit ki su defee lu baax nga gërëm ko si si talaata bi dafa gaañu rek mu mu mu bàyyi yëpp mu dem si këru këru daa këru jaawara mu dem jaale famille bi waxtaan ak kii xëy na euh, masaw waaw balaa muy jël dogal bi national moo leen for seven days waaw moo tax ma ne taxawaay bi rafet na trop mhm. ak njabootam you know Fatoumata Ba Baro mu ngi si kër bi saa yu ne su dul dëj bi sax mu ngi fa saa yu ne si lëdi ci lal saa yu ne mu ngi fa you know président bi tamit saa yu ne mu ngi wax ak Saadawra dafare dem seeti ko defal na ko teranga bu mat sëkk su rafetlu nañ si lool xëj na nit yi xëj na kaaru yi lañ bëgg a waaye jëfin yi tamit mm. moo gën a am solo you know mm. actions bi mm-hmm. yum jël jéeguwaay yum jël ba defal ko teraanga yi yëpp mhm. ñun famille bi kontaan nañ si rafetlu nañ si trop ak taxawaayu njoboot bi ak Gambie bi yëpp waa réew mi yëpp mhm. ak media bi ak ñëpp mhm. ñëpp seen taxawaay rafet na Sénégal seen taxawaay tamit délégation bu takku indi lu ma ten million CV loolu mat eight hundred and fifty thousand fi lu mat almost million jox ko njaboot bi pour masaw leen ndaxte eh, si luñ wax am nañ interview ak ministre bu bu ñëwoon teewal senegal dafa ne président euh, Macky Sall nekkul ci réew mi bu fa bu fa nekkoon dina doon ñëw moom it mu masaw askanu Gambie. waaw Sénégal lu ñu def ni bettul kenn. Mm, mm. su ko Sénégal diggante Sénégal ak Gambia. Mm. ñëpp xam nañ mbokk lañ. macha allah ku nekk am na mbokk Sénégal Sénégal am na mbo benn benn benn mbokk lañ. Sénégal ak Gambia seen diggante is unique. ñaari réew yoo xam ne ñoo nekk si àddina ñu nga xam ne luñ am si àddina bi beneen réew amu ko. Mm-hmm. soo demee Sénégal suñ laaka yi yëpp benn la. macha allah sant yi. suñ sant yi yëpp benn la. Mhm. lu ñu lekka suñ dunda bi yëpp benn la. ceebu jën Sénégal ceebu <laughs> ceebu jën Banjul yëpp benn la. Ah, so um, suñ defee loolu loolu beesut kenn Sénégal yàgg nañu taxawal Gambia du mm-hmm. tey. 1981 mm-hmm. coup d'état ñëwoon nañ fi. sowee nañ fi waaw so 81 gis nañ Sénégal ñëw nañ fii mm-hmm. reske ñu si band yi ñëwoon dugal si réew mi di rey nit yi te ay doomi Sénégal yu bare ñàkk seen bakkan fii nii soo gis nañ taxawaay Sénégal si loolu mënuñ leen a fay si loolu mm-hmm. gis nañ impasse bi fii am na 2016 bu Yaya Jammeh bañ a génn si réew mi Sénégal gis nañ seen taxawaay si loolu mm-hmm. you know kon Sénégal dëgg dëgg doy nañu mbokka mm-hmm. soo lii rek lañ mën a def soo ñu see rafet ñu see ñu si rafetlu bu baax am na tamit euh, euh, Hassoum Cissé euh, mm-hmm. xaw ma ndax dégg nga ko interview bu ñu ak moom dafa ne Sénégal ak Gambia dafa am loo xam ne lu unique luñ seeka mooy ni 1967 mm-hmm. mooy agreement yuñ saañoon diggante Senghor ak Jawara mm-hmm. dañoo ne tey jii ni xam nañ ne Sénégal moo ëppale Gambia représentation diplomatique représentation bitim réew fu mu ne ni si agreement yooyu fépp foo xam ne doomi réew Gambia dem na fa bu amee Sénégalais embassy mën na fa am euh, passeport mu nekk loo xam ne xëy na ñun new génération bi man keroog bi ma ko waxee dama xaw a tiit parce que maa ngi ko doon laaj ma ne baax loolu mu ngi woy ba léegi mu ne ah kay mu ngi wéy loolu xëy na tamit lu jara lu jara kii la corporation boobu noonu mu fa mm. ak yeneen defense mm. you yooyu yëpp a fa mm. yenn saa yi nag mu tàng yenn saa yi nag du neex loolu moom si diggante mbokk sax <laughs> magaraka mm. dafa neex mu naxari mm. you know jëkkër a jabar dafa neex mu naxari waaye loolu tax muy mbokk mm. bi yaaxu so Sénégal ak Gambia suñu seexoo dafa unique macha allah so moo tax dañ war a bàyyi wante xel you know gën a seet naka la gën a rataxalee diggante bi so foog naa comme xasum lu mu ko waxee so it is very necessary pour façon yooyu noonu ñu toog si kanami hmm. am télévision ñu wax ko ñu wax ko hmm. pour xale yi hmm. génération bu nekk ah, fii léegi ñu mun a xam lan la xewoon démba you know lu xewoon démba dafa important su ko loolu lañ mun a reflect ñu mun a biil suñ future so loolu dafa important trop pour ñu see jànga you know waaw jërëjëf monsieur Kidira am na solo comme ni ñu ko doon waxee rek yow nga jiite tamit bu weesoo fànn euh, nga nekk jege ñaale bokk si famille Jawara am nga tamit beneen beneen euh, xëy melokaan xar kanam mooy da yaa jiite mbootaay victime centre si réew mi mooy mbootaay ñu lóoru woon si nguuru gu fi nekkoon ngeen si amal tamit liggéey bu am solo ngeen di taxaw nit ñi ñi nga xam ne amoon na loru ñu si gaañu woon ñi nga xam ne soxal ne ndimbal si wàllum paj ak leneen ak leneen nga ci am tamit taxawaay bu am solo ñu lay comment si loolu xëy na rek fu mu ne nii yeggoon balaa dëj bi am xëy na rek balaa laataa programme bi yéen tamit fu ne nii si yan taxawaay si yan jéego ngeen di dox gisoon nañ keroog seen statement bi ngeen doon naxarlu bu ñu ñu bàyyee ñi nga xam ne mooy jongla si Euh, balaa <laughs> balaa dëj bi di xam ci coow loolu lañ nekkoon. waaw um, loolu is a very complex situation. Mm-hmm. bu mu xawee eewee eh, um, ministre bi bu mu annoncé ne. Mm-hmm. Uh, mu ngi consider pour bàyyi jongla si. Mm-hmm. soo ñun luñ suñ xalaat. lum ñu jox mooy balaa ñoo bind dara. ñu engage ministre because suñ diggante. they are our partners so lu bëri lu rafet lu bëree jaar suñ diggante ñoom so process bi ñoo ko seexa mm-hmm. ñoo seexa transitional justice am um, process bi mm-hmm. so ñu seet ne lu si gën a rafet mooy mm-hmm. balaa ñoo react ñu dem um, gis ministre bi waxtaan ak moom um, mu wax ñu yan jox ñu reason am lu tax muy bàyyi jong si waaw so buñ demee diisoo ak moom demoon nañ uh, boor some board members mm-hmm. um, ak um, secretariat staff mm-hmm. ak some of the victims mm-hmm. so ñu dem wax ko suñ naxar ak luñ suñ xalaat daal so mu dégluñu moom it mu wax reason am lu tax muy bàyyi jong si um, because benn si reason si wax na ne because afa am ñu jëkka ñëw uh, perpetrators ñu a ñëw testify waaw si TRRC bi ñu rey ay November 11 victims yi ak Koro Ceesay soo mu ne te ñooñu ñu ngi leen bàyyi ñu ngi free mm-hmm. soo te ñooñu tamit soo gisee ñu bàyyi la ñu free mm-hmm. pour ñu mun a encourage ñeneen tamit mun a ñëw wax pour parce si mu ne suñ téyee ñële mm-hmm. ñële dañoo ragal a ñëw wax sa kaa ku nga xam ne téye nga ko two and a half years already soo soo mu jox ñu résin am yi ba ñu ñu ne ko daal xëj balaa ngaa jox Euh, joxe hmm. amin ndogal ndogal hmm. xëy waroon nga ñu inform su ko defee duñ tiit hmm. parce que daf leen a beeta waaw daf ñu beeta ah, si si comme conversation bi gën a continue ah, buñ fa jógee ñu ñëw si Monday bu moo joxe press euh, lifin press conference bi ñu ne ñu génnee suñ euh, press statement amin won si suñu opinion ak nuñ ko xalaatee ak nu mu waroon a mel soo ñu joxee loolu moom it bu mu gisee loolu mu delluwaat amin invite waaw pour ñu ama moom meeting si victime center bi ñu ob victime si yëpp nag soo si biir process boobu noonu tamit ñu ñoo jàng ne victime center bi nekkul ne just a particular group of victims ñoo fa nekk victim center bi dafa bëri uh, victims more than thousand understand te ñëpp different categories of victims mm. ku nekka sa xalaat mm. ku nekka sa xalaat ak nu nga gisee things so ñu fil ne daal mm. ñu of victims yi ñoom seen boppa ñu ñëw waxtaan ak ministre bi so victims yi ñëw am na ñu nga xam ne tamit like ñu nga xam ne ñuñ la njëkk a wax seen famille ñoom ñu ne ñoom ñu ngi muñ soo ñu ngi encourage ñeneen ñi tamit pour ñu muñ su ko defee ñeneen tam mun a ñëw wax soo xam nga loolu beneen wax la so ñi ñu nga xam ne ñu ngi bàyyi jong la si am na ñu nga xam ne tamit mm. ñu ne dëgg daf leen naxari te dëgg dëgg dafa naxari ñëpp di ko doo gis mm. ku sa mbokka nga gis ko defe na li mu ngay dox si mbedda yaa ngi xoolantee moom loolu nag na li neex neexul ci xol nag soo foog ñu understand emotions yooyu so am na ñu nga xam ne tamit war nañ ne ñoom tamit they have a right comme mm-hmm. famille for instance dama jox famille Ilu Diallo bi ñoom mm-hmm. tam ñu ne they have a right pour ñoom tamit ñu rey seen bokka oh. Ilu ñooy oh. tamit ñëw wax soo ñoom ta ñu ngee ñaan uh, ñeneen ñi mm-hmm. pour ñu at least ñu may leen chance su ko defee ñële tamit ñoo mun a wax so xam nga mm. we were in a very funny position so pour jël eh, eh, position foofu noonu dafa difficult trop so moo tax ñu oote waxtaan boobu noonu yëpp mm-hmm. waaye ba tey mm-hmm. wax nañ si suñ naxar bi ko nit ku rey moom dafa rey nit rek loolu moom definitely te ñu sekkoon nañu waxtaan tamit ak Baba Baba Aidara waaw bokk si si yéen dafa ne moom dafa ndaxte ñu ñu ñëwoon si seede yi am na ko ñu wax ne ñoom bokk nañ si ñu lay papam mm. mu wax ne ñii tamit ñu leen di bàyyi amuñu yoruñu dërëm te reyaate lañ miin ndax seef na si si société bi loolu la doon wax waaw argument fi noonu yëpp mm. wax nañ ko ministre bi mm. ñii naka la ñu amin da ñëwaatee dugaat si société bi ok ba mun a fitaat si société bi cause ay reykat yi nit you know definitely dafa am fuñ utee ak ñun psychologically mm-hmm. so moom tamit lu wax mooy mm-hmm. Um, these people dañoo bugg di am counseling an okay. ongoing counseling okay. at the TRRC psychologist yi dañ leen a gis pour rehab leen okay. pour ñu mën a delluwaat si society bi mm-hmm. you know so I'm sure gars ñu ngee dem through that process so am nga a transitional justice bi process la Um, dafa nekk lu nga xam ne dafa complex and is very sensitive mm. you know um, reykati nit daal moom reykati nit rek la soo nit yëpp noonu lañ koo gisee soo pour uh, sa xol nangu ko mm. mu ñëw toogati si société bi nga mm. toog moom di xoolantee moom mu nga xam ne ordinaire kii moo rey suma papa mu ngay dox ak yow mu nga free understand na neexul si xol so loolu dafa métti so victime si nga war a understand victime bi sam seen émotion si as far as that is concerned heure bu weesoo la si yéen yaa ngi amee yeneen liggéey comme ni ñu ko doon wax yu am solo maanaam comme toppatoo victimes yi ah, ak yeneen ak yeneen ak yeneen mbootaay àdduna si comme yu mel ni NGO si ay yooyu bi ngeen taxawalee eh, victime centre bi ba léegi waaw victime centre bi victime centre bi sa support fu ñu ko dee amee mooy hmm. international amin la NGOs waaw dono si hmm. you know currently ñu ngi am programme ñu nekk di dem um, like um, sides of conscience, International Coalition of Sides of Conscience. Mm -hmm. It's an American, I mean, the uh-huh. uh-huh. ñoom ñoo nekk di ñu sponsor support uh, in terms of um, operational cost, um, maintain staff si ak yeneen operational cost si ak also providing psychosocial support. Uh, counseling pour victims yi pour waxtaanal ci seen xel yi mm. pour indiwaat seen xel yi psychologist yang fa mm. uh, well experienced I mean ak qualified psychologist moo fa nekk docteur Sidibé foog naa Gambie yëpp xam nañ ko so moo fa nekk ak teamam mm. ñu ngi def liggéey yu rafet ñu ngi provide counseling to I mean the, to victims you know before ñu dem TRRC ak after suñ demee TRRC ah, ak ñu nga xam ne demaguñ ci hiérarchie sax ñu ngi continuer di lañ jox support. ñu feebaroon nii nag. waaw ñu feebar yi tamit tous um, the same um, organisation uh, grant sites of concern seen support bi. Ah. ñu ngi am a medical programme. ñu nga xam ne in fact dinaa profité tey. Mhm. victimes yi xëy na ku mun nañ nekk victime yaa ngi registré bi di victime center. Ah. I mean uh, soo ñëw déglu oo nga am mbokk nga xam ne nekk na victime. Mhm. mun naa dem victime center. pour am soxla medical assistance mm-hmm. victim center mu ngi provide medical assistance so ñu ngi ko uh, provide those uh, support those victims so ku victim bu am that uh, I mean mm. the soxla nga dem foofu noonu am ñu ngi provide medical support bu loolu weesoo tamit amoon ngeen yéen dangeen engage yoon tamit si beneen process mooy registration maanaam bindu képp ku fi amoon looraange si nguur boobu pare ngeen ci non on registration bi is an ongoing process okay, in fact from time to time dañ dee am a nationwide outreach mission yi nga xam ne waa dañ dee wóor dëkk bi Gambia bi yëpp because léegi sax establish nañ regional focal points yu nga xam ne soo demee gox boo dem soo demee North Bank mm. CRR mm. you know nga dem URR mm. foo dem am nañ fa a regional focal point ko pour ñëw gaam e eh, Banjul dafa sori so um, victims yi xëy na ñëw seen nomba si waaye ku call victim center bi. di oo nga dem si suñ Facebook page bi. dinañ xëy na mën nga fàttali benn su fekkee am na boo jàpp rek pour képp koo xam ne mu ñuy seetaan koo xam ne am na looraange mën na si oote wala mu ñëw victim center rek wala. waaw normalement I don't have it off here waaw waaye waaye victim center soo demee seen page bi. Mm. so di nga mun a. muy Facebook waaw mu nga mu nga am am nañ Facebook mm. page. Mm-hmm. you know so am nañ Twitter you know so soo demee si accounts yooyu noonu especially di Facebook page because ñu bari day access Facebook so da nga mën a lifin am waa waaw so from now on ay ñu ngi war a am ay radio ak uh, television programmes pour sensitize the public about suñ focal regional focal points yi so dinañ ko si waxaale si euh, ak dañ dee am outreach mission tamit hmm. du yaaga because hmm. si julli lañ jógee so xam naa very soon dinañ dem outreach mission so dinañ waxtaan a nit yi dinañ xam suñ focal points yi tamit fuñ nekka so suñ suñ programme si bari ñoo yooyu ñëw on air xam nga tey moom danga ma bett hmm, so ni ko na mënoon laa prépare suma boppa ma ñëw ak numbers yooyu noonu su ko defee ku nekka waaw ku nekka biir Kaamaba di nga mën a dem biir Kaamaba fooy dem mën a register ku nekk foo ñi di nga am foo dem nga register so lu nekk am nañ am nañ focal points across the country waaw jërëjëf monsieur Kijera xëy na euh, xam naa ne waxtu bi xaw nañu dab tuuti am na leneen ak leneen loo xam ne xew na si biir waaye comme niñ ko waxee rek lu nekk daal am na priority comme lu ci mel ni euh, euh, resignation resignation yu ñu gis fële si OIC bi mm. mooy am na ñaari nit ñoo xam ne tekki nañ seen ndombal tànk Euh, xëy na waxuñ ko noonu si week bi ndax xëy na am na leneen lu ñu taloon xëy na next week incha allah dinañ si gën a delluwaat. ak ak yi ak ñi nga xam ne ñoon ñu seetaan dinañ dellu si waat xëy ak leneen loo xam ne tamit xewoon na si si Gambia ferry bi foofu tamit amoon na incident bi ñu wax ne euh, ramp bi maanaam moto yi corsé buñ buñ teeroo fu fi nga xam ne foofu la ñuy jaar pour yegg si ñu noo wax ne itam foofu tamit demoon na waaye ñu dem vérifier ñu wax ne amul. dafa amoon incident rek boo xam ne moo fa amoon waaye demul benn yoon seeku nañ waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo faree ci diwaan boobee kon nag euh, Mister Kijera di la gërëm di la sant di di la wax ne rek fii sa kër la incha allah beneen yoon rek bu comme ni nga ko waxee si boo leen euh, dooree seen yeneen liggéey yu si mel ni comme li nga xam campagne bi ak yooyu di incha di dinañ si delluwaat lu yàgg ak yow. waaw mhm. am campagne bi suñ ko starté xëy na dinañ am programme euh, with euh, Star FM naka Star TV in fact maa profito tamit mhm. gis nga tolérance dafa baax waaye tamit mhm. certain issues dafa sensitive so ñu ngi gis ne am na victims yi they have been through a lot si métit bari lañ nekk métit doy waar lañ nekk ba léegi so suñ demee ay TRRC ñu jógee fa am ñu nga xam ne di use seen political platform di di di mock mm-hmm. victims si loolu mm-hmm. I think that is very wrong especially APRC party I have to be very clear on that you know mm. exhume nañ fi ay bodies mm. you know suuli nañ fi ay bodies a the at the at the Yundum a dégg nañ uh, uh, I mean the wax yu ñaaw yu gaay si loolu mm-hmm. xam nga mm. so yooyu dafa indi Mm, si xaajaloo si mm. time yi réconciliation lañ nekka waaye naka la ñoo su dee yéen ñi na mm. nekka foofu di nekka in denial yaay lu bon ñu fi def ñëpp xam nañ ko xale liir sax soo ko ee eh, mun na laa wan li yaay jamee def fi so I think we have to be very sensitive te bëgg naa government tamit ñu jël si seen matuwaay si loolu because du ko mooy dafa ñoo jur leneen lu nga xam ne dafa dafa tilim waaw dafa dafa dafa du rafet waaw et pare government ñu jël seen matuwaay yu nga xam ne dina war a réinstituer di ko gis nañ victimes yoo xam ne mm-hmm. yaa jamee daaxoon na leen mm-hmm. ri am na ñu nga xam ne réinstituer nañ leen mm-hmm. am na ñu nga xam ne réinstituer luñ because of seen political amenda affiliation te which is wrong Gambia bi ku nekk am right you belong to any party of your choice you know so suñoo réinstituer nañ réinstituer nit yi to be fair in a, in a transparent manner okay. then you said party political affiliation mm. ñu bàyyi loolu noonu ñu jox ku nekk fair treatment waaw so am na solo am na solo jërëjëf monsieur Sheriff Kijera nekk ku jiite mbootaay Victim Center fii ci Gambia di ko gërëm ñu doon waxtaanee ak moom nag lii nga xam ne génn àdduna mooy njiitu réew mi fi woon di Sir Dawda Kairaba Jawara nga xam ne si talaata la fi wàññeeku mu amoon 95 years moom nag nekk na itam jege jegeñaale eh, bokk ci njaboot eh, njiitu réew mi kon nag mbokk yi ñu doon seetaan fii la yem ak yéen ci programme bi di leen gërëm di leen sant di gërëm itam ñi nga xam ne ñoo féete woon ci machine bi ba li mën a sotti ñu leen dégg dig daje rek ñu leen di jox dig daje rek next week bu yàlla àndee si yeneen xibaar incha allah jërë ngeen jëf